yàlla di ko gërëm ci sama diggante ak yow mii jërëjëf Mbacke yàlla na ko fi yàgg lool loolu wax wasak ci bi waxtaan ram bi yaa pataan mu bi laa yaraa li fi yàgg yàlla na ko fi yàgg Mbacke jërëjëf barke suuru xabadan maam Cheikh Ibrahima Sarr mi sama maam taxawaloon kóor na xabadan bëgg naa la nga doon lu ñu ci dugal nag tànnal leen yéen ñaar nu am gën a laxasaay fa fas yéene gën a Tuubaa loolu rek la sant nañ leen gërëm leen bu yàgg diggéen nañ leen wéttigoon nañ leen bu yàgg xanaa xanaa dafay waxtu wax ne aajo fedd yi suñu laxasaay rek gën koo ànd rek fas yéene liggéey sëñ Tuubaa naka ma ko wax doo dégg ñu defal nañ ma ko lu baax xam nga ko ko def yow la ko defal sant nañ gërëm leen الجمل دام يان يدون يسر له بين جنافه كل ما يسر حبيبي جاي من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار سوي لنا حمدا وطهي لنا بدلا وقبلنا رشدا وتوفيق وفق جميع انا لما فيه واغفر لنا سوبنا يا اخوك waaw waaw dëgg na leen bu bu baax kajoor na fa noonu la boo sëñ Thia wax ma ko nii sëñ Thia la fa xam nga kajoor yi waaw na ñëw bu baax baaxaale dem

ma joxoon sax. Mbacke Mbacke waaw jërëjëf ak sa doom la jërëjëf barke barke barke barke ñoo ngi lay siyaar léegi bokk sëñ Bachir Alfayda nuyu na la jërëjëf waaw neta bi moo ko joxee nee na ñu yeesalu ak njëbalam ki fi nekk Cheikh Ibra Fall ak njabootam ñëpp loolu santaane rek bu ko yëgee ma ko ca loola waaw te duum ndigal rek nee nga ñaanal ko bu baax jërëjëf waaw ok ok ok jërëjëf jërëjëf

te suñu asan ñoom ñoo jàngal loxo rek ñi ci des ñi ci des ñu yéene waa leen leen te suñu bàll wagal Thank you. Fall Ousseynou Fall. jërëjëf Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Sakal Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Xalifa Xambal di ma jàpp Sowa ñu ne Xalifa Xambal Sowa dañ ci mën Sowa ok ok Fall Xalifa Xambal ok Fall Fall Mbacke Mbacke jërëjëf Mbacke ñu ngi leen teer fii ok Fall jërëjëf Mbacke jërëjëf Fall Mbacke jërëjëf Fall bu ko ci ko

Fall Mbacke Balla Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mourtala nga jël léegi ah waaw waaw da nga daaw da nga jot da nga da nga baax bi rek waaw baax na fi ñu baax na baax na Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Fall Fall mu sëñ Bara Fall sëñ Bara mi ngi lay mi ngi lay ziar bu baax sëñ Bara mi ngi lay ziar bu baax Fayal Fall Fayal Fall a nag moom nag bi mu agsee daa tàmbaloon ñaan ba mu àgg ba na nëppal noonu suñu Fall bi moo yore kàddu kër gi mooy wax kàddu sëñ Cheikh yéen déglu sëñ Fall mii yor ko ngi toog waajuram yi waajuram yi ñëpp a ngi toog xalifa général de Sëñ Touba jëwriñ Sëñ Touba ji tey jii sëñ Cheikh Jëm Fall moo yónni say ndawam kii mooy sëñ Cheikh Fall Ndiaye Ndek sëñ Asana ngi nii sëñ Saliou Fat sëñ yi Fat Sow sëñ Amdi ngi nii sëñ ak ñun ñi nga xam ne ay dongal ne ànd ak ñoom sëñ bi nee na ñu jiital siyaara kii bàyyi ko sëñ Sidi Makhtar Mbacke ñaan ko waaj waajuram bu baax wa ak maam ja ko defal di ko jëm loolu ko fay ngërëm ak leer àjjana ba déglu Sëñ Tuubaa yooyu dafa dem ak ñëpp ñu baal ñëpp mais mi ngi mi ngi ñaan nag yow mi nga xam ne yaa fi nekkal day Sëñ Tuubaa jóori Sëñ Tuubaa ji mu ñaan si maam yi Sëñ Tuubaa si Rahim Fall yàgg fi loolu te ànd ko wér naa la Cheikh Bassir Mbacke ya ak naa la Cheikh Moussa ya ak naa la Sëñ Tuubaa yëpp ak naa la si mag yu baax ya parce que yéen ay bopp ji Sëñ Tuubaa na la fi bàyyi di wéral la nga def ko na nga ko bëggee daana ko amurit yëpp neen nag mi ngi salak njëbalam moom Cheikh Fall moom yaa fi Tuubaa tey tey mooy Cheikh Fall mu ngi sala njëbal bu wér mboolem njëbal Cheikh Fall képp rek jëbal la ko tey topp sa ginnaaw nag déglu seen ndigal loolu ndigal amul leneen a dégg ñu leen dimbale ba jekku ndigal nag loo bëgg nañ ko man tey defe ko ay Baay Fall dëgg lañ bëgg a doon ak murid dëgg yooyu ko tey ji ak yoonu murid yëpp ñu ñaan nga yàgg loolu dëgër nag joxoon joxoon na ko nag ñaari nag ñaari nag joxoon na ko ñaari nag ak téeméeri junni mu ab te ji siyaara siyaara bis bee na seen rafal defal na sa maam ji baaxee def na ko yow tey na yoonu murid yëpp ak yoonu ko rafal yëpp jébal ko tey ñaan nga yàgg lool te wér nag sa yéene ci liggéey bi daal nanga ko bëggee rek yàlla na ko sa borom defal lu kawe sa jot dara ji Cheikh Bassirou Mbacké dara ji sëñ Touba Serigne Fall ak murid ñëpp naan ko yow nag waaw yow nag yàlla ko nag akasa akasa jërëjëf ko seeree rek waaw sama ko seet akasa seet nag bu baax seet nag ko seet bu baax maa ngi gën a fàttali sama laxasaay seen ko gën a ànd ak bëggee rek sama yàlla na ko defal na ko bëgg xel dal sama xel dal na bu baax yaa ngeen sama xel bu baax yaa ngeen sama xel bu baax waa kër Cheikh Ibra Fall Diop sëriñ bi nee na seen at yi agsi na sëriñ bi jox nañu ko